waaye paa ñi ah aussi kaay ma wax la nag leen xam nga ibaadu rahmaani naa leen tudd ci benn boor dañ leen di reprocher mais ñu ngi liggéey ci ban jigéen ñi muuru yëpp ñoo leen di muuruloo te loolu la yàlla santaane kaay ma wax la nag man dëgg lay wër de kenn ganaaru kenn nenu ma gudul yàlla mi ma bind ibaadu rahmaani ñu ngi liggéey mësuma ci gis jigéen ju jox góor loxo am naa ci ñoo xam ne dama leen defal conférence muuraay ñoo koy defloo loo jigéen ñi ñooy fexe ba duñ jox loxo góor te gis naa ci ibaadu rahmaan yu jigéen ñi fu julli jotee nii la ñuy tegaloo amuñ ci kersa dañ lay bàyyi ca tànt ba dem julli ji boobu liggéey koy liggéey kenn du la kenn du la xas liggéey rafet na torop torop laa wax man Iran maa la wax lu ku leen diinga ti loolu da ngaa jubal di rek ah, parce que ay diine jooy jox loxo jigéen fu mu am nii ab sëriñ nii jigéen laaj leen fuñ ko bind yow nga boole ñaar yu xaraam téye ak xool qul lil muminina yaxudu min absarim bul xool yow nga ne nii ni xujj boole ñaari xujj ak téye yaa ngi sàcc bànneex daganul mënoo koo layi lu xaraam la ñoom duñ nuyu jigéen jigéen ñi ñu formé duñ nuyu góor duñ faat waxtu julli te koo ci gis jàng na ba mën a liir ñi ciy liggéey ñëpp fay nañ ay ustaad yu leen di jàngal xale yu jigéen ñëpp a mën a liir et alors ko mënoo ko reprocher parce que ñu ngi liggéeyal diine kenn mun leen reprocher li ñuy def gisuma ko def lu ko lu ñu toll baa lu ko tani déedéet non non non jàmbaar lañu parce que man xam naa ci daal li yàlla digle qul lil mu'minina yaxuddu min absaarihim a ak qul lil muminaati yaqdudna min absaarihinna ak qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il muminina yudniina alayhinna min jalaabibihinna waxal jigéen ñi muuru benn bàyyi waxatu ko ñoom ñoo ciy waaraate ba xale yu jigéen yi muuru am na ci sax ñuy muuru ñu leen di fitnaal te yàlla nee na wala tukrihu fatayaatikum alal bixa in aradna taasunan suñ bëggee muuru bàyyi leen leen ñu muuru te ngeen jàppale leen nga naan ko woy da ngay aay da ngaa bon ak da doo baaxak ak pour bëgg mu sol ay yu sol ay jiin woote far di cagatu di njaalo di la jox ngay lekk Ibaadu Rahmaan yoon ñu awee normal la baax na parce que alxuraan li mu wax ñoom loolu la ñuy def ci wàllu yar jigéen ñaa ngi muuru jigéen ñi dool leen gis ñuy jox loxo góor jigéen